ñu fas yéene ànd ak yéen ci jotaayu lislaam muy al ilmu wa taallumi waaye demee nag ci salaam te salaam buñ koy wax nag mooy jàmm te nit boo xëyee te amoo jàmm amoo dara kon yal nañu yàlla mooy jàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ngeen koy xaar kon ci seen si seen si seen chaîne bi di Salam Vision jeudi bu jot à partir de 17 heures incha allah rabbi ngeen ànd seeg seen xarit seen bi an oustaz Ibrahima Diarra ci xam ak xamle li arab ne al ilmu wa taallumi ñu bàyyi loolu ci xel yi ñëpp ci mbokk internet bi ku ci am looy laaj nga laaj ko ku ci am tamit loo ñuy yokk ci xam-xam nga yokk ko ñu fas yéene ko ànd ak yéen ngeen ñuy dolli ñu leen di dolli ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam